que lu toll ci fukk ak juróom-ñetti nit ñàkk nañ seen bakkan ci géej gi ñett mucc ci ñu bëri nag réer ci kenn gisu leen loolu Sénégal ñàkk ci ay ndawam ñàkk googu ñu yëngatu ci langue politique gi ñu bëri wax nañu président Macky Sall ak kii di premier ministre di Amadou Ba président Macky Sall defal njaal jaale famille yëpp yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci biir géej gi kii di premier ministre Amadou Ba ne moom gouvernement bi dina def lépp lu mu mën ngir taxawu famille yi nga xamante ni ñàkk nañ seen doom ci biir géej gi. beneen premier ministre jël tamit kaddu di wax ci naqar ak tiis mu ne ñaan naa ndaw ñi ñu toog fii Sénégal liggéey ko jël géej gi wóorul toog Sénégal moo gën liggéey ko. bu ko defee ñëpp jariñu ci ki nga xamante ni nekkoon na fi tamit premier ministre di Thierno Alassane Sall moom état bi la waxal doom saa yu nekk dañ leen gis ci géeju Atlantique ak Méditerranée loolu lu métti métti la ci jamono jooju ñi nga xamante ni ñoo ñuy jiite. ñu ngi wax waxu tabax tabax yoo xamante ni lu muy jar dégg na dayoo ki ak moom ci loolu nekkoon fi maire de Dakar di Khalifa Sall moom tamit di woo état Sénégal ngir mu saafara mbir mi ba nga xamante ni kenn dootu ci ñàkk bakkanam muy wax joo xamante ni daanaka ñuy yëngatu ci langue politique gi ñoo ko awu di ko jëmmal ngir rek xeex lépp luy jël gaal gi dem bitim réew